ba tax na kon def na ci liggéey bi loo xam ne si kawe na njortul ñëpp te àndoon ak sëñ Tuubaa nag xumaaba gag fu ne mu dem fa def liggéey boo xam ne si kenn amut loo ciy wax maam Aliou moom yi nag mooy bàyyi bàyyi alaaj Thierno ak bàyyi Modou ak bàyyi Cheikh ak bàyyi alaaj waaw maam Aliou day liñ ci mën a wax xam naa ay dégg-dégg lañ ci am ndax ñun bi ñuy gën a àdduna fekkuñu ko fi waaye nag mag ñu ñu yar muy sama baay di baay bees ak yaay ci la mi nga xamee ne maam Aliou moo ko yar muy sama yaay maam Aliou ko fii la yoroo kër gi yi toog nii fii la moo ko sama eh, ko yar ak maam Fatou Sylla mu yaroo fii nekkoon fi ba wetu tànk lu mu xam ci àdd si àddina fii loo ko xamee lu mu jot a liggéey ci àddina it fii la ko xamee. moom nag dafa demoon gànnaar teg suñu tubaab gànnaar xumaat. di liggéeyal euh, ba ko fekkee fu am ko ay weer moom magam ge Serigne Malla moom mu ko na ko Serigne Malla Seck la daje foofu gànnaar mm. Mm, demee moom mu téye Serigne Malla léegi maam Aliou mu ne ko yewi moom na ko léegi da ngay delluwaat euh, Saloum sanc foofa boo demee nga jéem a jaam yàlla foofu moom Aliou dox ba ñëw fii. ñëw képp nag ngir liggéeyub Serigne Touba bi ñëw képp ngir liggéeyub Serigne Touba bi ndax fii bi mu fii ñëw booba ay rab ak lépp fi nekk àll la. mu dikk nekk fi ne def fi dëkkam nga xam ne amul kum ko xëccoon ba tey jii mu nekk ci ak moomeelam. képp moo ko indi fii moo ko indi fii ndax boo seetloo ba jàkkay murit gee mboolem ñu ci bari jaar nañ fii nekk di liggéey Baye Alaaj Ceerno Baye Mayasin Baye Njool ñëpp a fi jaar tey kon liggéeyam boobee moo leen jox possibilité tey bañ mën a àgg fii ñu egg. sama yaay lu bare bari daf koy fàttali fii di wax ne ba mu fiy ñëw ba ñu fiy nekk boobu àll bi lëndëm na mu nekk fi lool doon jàmbar fekk fi ñu bari nag ay wëllëre ñu baree bari ndax sëñ ma jo paxam yi wëllëreem jóg fii sëñ ma jo paxam ku xam kër suñ Tuubaa xam ko mu nekkoon Gossas gii wëllëreem la woon ndax mag ñi ñu fekkoon jamono sëñ Tuubaa daan demlante dañoo bi ñu dëkkee seen dëkkee dañu daan demlante moom nit ñu baax rek la amoon li ñu waxee nag ma Modou Diop waxe daana ñëw ci kër gii di ko fekk si mu daan dem gu sax gi di ko fekk si muy lu kéemaane nga xam ne ñoom sëñ Tuubaa taxoon jàppante mu ñu weet dëkk bi nag tund yi booba murit yombut feeñal ko fenn yombut waaye teewul ñoom ñi fi jota ne am nañ dëgëru dëgëru fit goo xam ne ak kattan goo xamee ne ak positif goo xam ne fu nekk danañ ko wane. waaw moom li ma liggéey li ma si liggéey fii tool yi rek eh, da koy yóbbu jox ko adde sëñ Tuubaa waaw ba si ba lool lool lool lool nekkoon fi ba Sëriñ Tuubaa jógee it moo ñu fi nekkoon xale Sëriñ Tuubaa yëpp di Sëriñ Fallu Sëriñ Mourou Safa mm, moom li kii moom nag dafa dafa wàcc liggéey dafa ndax cinquante et un la wàcc liggéey 1951 euh, la wàcc liggéey fii ci Diyoli waaye moom lépp Sëriñ Sëriñ Sëriñ Sëriñ Sëriñ Sëriñ Tuubaa la woon taal Sëriñ Tuubaa bu bëgg ndax moom boo wax Sëriñ Tuubaa sax ñaare ku gaaw a ku gaaw a daanu la woon waaw daana wax ci yàgg mu jël ay xale yoo xam ne ay fourne mu fëgg mu wax ki sotti xal yi ci yaramam mbaa mu fekk mi ataaya ataaya ji bax mu fopp ataaya ja naan. màggal gi de dara waralu ko lu dul fàttaliku rek fàttaliku ko rek jëfam yi lañ bëgg téye ko ba bañ koy fekkee rek te yàlla na yeex loolu rek moo indi ñuy def màggal gi fii di ko fàttaliku jàng fi alxuraan ak i xasida ak waxtaane luy tax dëkk bi gën a jëm kanam. sama baay nettali na ma ne euh, maam Aliou mook sama maam bi nga xam ne moom maam maa la ñoo bokk ndey ak baay ñoo toppante. waaye daf dañoo déggoo woon juboo juboo gu am sol dara ma sa dugg seen diggante joxante cër ba nga ne dina la sama bàyyi nettali ne na ma ne eh, maam Ali bi mu tawatee ay jamono maam maa la jóge tey bëgg la di ko seet si bu ma saa taw day ñëw nekk fi ak moom nekk moom ba mu tane mu dem waaye tawat gu mujj gi nga xamee ne di ko yóbbu mooy dafa tawat sama maam ñëw feexee moom ne mu ne fee moom yàlla def bi mu toogee ba kuddi mu woo xam ne moo magoon ci doomu maam Aliou muy bàyyi Modou Seck bàyyi Alaaji Modou muy mag ci bàyyi Alaaji Cerno no kaag nga ma lii de ma si dama nettal ci ko feral nee na ma ma ñëwal gunge ma nee na bàyyi Modou ñëw ñu dox dox bi àll ba ci yàgg mu ne ko moodu mu ne nga ah, na nga muñ te sant yàlla de ndax xam ne sëñ Aliou mii day sëñ Tuubaa ko doon liggéeyal te àggal na woppam sii day yaakaar da ciy jóg ñëpp di ci jóg ndax sëñ Tuubaa ko liggéey àggal lay dem nekk rek bàyyi laa ji mu daay yuuxu daanu mu na ko ma dama foogoon dëgër nga rek moo tax ma wax la ko waaye sëñ Aliou àggal na. xam nga mag ñi baax ñi fu ñu nekk rek euh, di ko sax dafa baax ndax ñoom fu nekk fu nekk rek foofu day yokk waaye fii yëpp sax boo xoolee ab gent la woon dafa nekkoon gent. nañ fexe ba daaree alxuraan am ndax moom am na ay sët yoo xam ne si ñii waa kër sëñ Mourtala lañ ñii feneen lañ bokk kon nag ñooñu itam nañ leen yaatal ci dëkk bi bañ samp fi man fee def daara njàngum alxuraan di am liggéey di fi am lii rek moo fi nekk leneen nekku ndax sëñ Tuubaa fu mas mas a sanc jàkkaa fay jiitu daaray alxuraan ak i liggéeyukaay te ñoom moom dem lañ àndaloon kon nag loolu nañ ci bokk xalaat def ci ay waxtaan fexe ba loolu mën a wéy ndax fii ñu ne muy barab bii ca kanam la ñu mënta deltu gannaaw de ca kanam la jëm dañ koy defar ñoom am sansu yor barke bi wala yor ndam li ñu ne waa kër ah, sëñ Aliou sët yi defar nañ ko suñ nga defut seen i doom ak seen i sët bu ko defar ñeneen des ko defar kon li gën moyen yaa ngi fi pexe yaa ngi fi volontement bi rek moo ci des moo ci des il faut que ñu volonté wu seet nu ñuy def bu bis bii ndax bis bi ku képp kuy ñëw fii te bëgg at mu jot nga ñëw fi ziyaare fi ut sàkk su lu baax. bëgg nga boo ñëwee nga fekk fi loola fi mën a dalal wante nag bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax ñëw togg ay añ def yi benn jàng kaamil lu baax la farata ndax alxuraan jëkk moo ko mën a fekk kenn ko defal ndax loolu rek la bëggoon wante defal ko ba nga xamee ne ku fi ñëw du ñu rus ñu xam ne suñu maam nekkoon fii di liggéey seexul taalibe seexul xadim ndam lay doon ndax kuñ la waxee ne sëñ Mat Jofaxa daan na ñëw fii wala moom Aliou ak yeneen mag ñu baree bare bari daa day ñëw fii di ko seet nga xam ne ko kilifa kon fu mu nekkoon doon jaamu yàlla te nekk foofu lu baax nekk fa ak waa këram te njaboot gi nefi te man gi nefi man gi moom mi fi à 100 leer na woon bu ñu ci jublu day balaa wéer wéer déwén luñ ci fekk dañ ko fi def. di am kontaante ci li nga xam ne mooy comme jotaay bi ak laaj bi ma ci li nga xam ne mooy Mame Aliou Seck li nga xam ne moom la ñuy ñaanal tey. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp delloo jàmm te jëpp aajo ju fi nit am ju fi nit andi muy tawat yal na ko Serigne Touba faj muy lu muy wut te jotegu ca yal na ko Serigne Touba faj nam ko bëggee saa yaram wa baati na. dëkk bu nga ñëw fi dépla déploiement yu bari ñëw installé lu mel nii def ko wax dëgg yàlla yombut di leen ñaan yàgg ko def te yàlla dañu leen gërëmal sew xadim ak ngërëmam maalum sant nañ ñëpp nuyu nañ ñëpp ziar nañ ñëpp di jégalu nag wax ji lu ci dëng na ma ko ñëpp baal rek ak matériel doomu aadama di yoo xam lépp lu ci rafet danañ ko sant suñu borom sant naa la gërëm naa leen jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen témoignage yu am solo yi nga xam ne mu bàyyi ko ci sunu kilifa yi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon def témoignage am solo macha allah daal jëm ci nga xam ne mooy sëriñ maam Alioune Seck mi nga xam ne tey moo waral màggal gi fii ci diwaan bu Touba Diyoli dégg ngeen li mu wax daal di jëm ci li nga xam ne moo waral ak ñëwam fii ci diwaan bu Touba Diyoli li waral màggal gi kan mooy ay waajuram mu nekk ay témoignage yu am solo yoo xam ne mbokk yi danañ ci mën a jàng jàng mu am solo sant leen gërëm leen ñoom sunu kilifa yooyu waaye euh, sant leen gërëm leen leen ci teewlu gi jox leen dig daje ba beneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu